وردي الله عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا هذا المحضر وتأتي في بنصرة تأتي لنا بظفر المرد أخرى الحضر رب إسر لي صدري ويسر لي أمري وأولو الحقرة من لساني يبقى قولي بكي جروب جبر الكسري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مانجلين دينيو man Mouhamed kebe ñu gën koo xam ci Mouhamed Kébé Zakir am ñu ne Amad Kébé Zakir euh, <coughs> ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen turam ak leen ziyaara bu baax ziyaara bi nag buñ tuddee Oustaz Lamine Sarr ak Seyid Aboubacar mi yaakaar naa ne tudd na ñëpp di am mbégte bu baax ci dalal gi ngeen ñu dalal tey fii ci jabrul kasri te jabrul kasri bàyyi waxoon nañu ne aw jadani xaqan li jabril kasri fa inna ni wakilu sirri sirri yaakaar naa ne foofu ngeen di péeturwa Cheikh Ibrahim dafa waxoon na yàlla amal na ma ngir ma jàng damm-damm yi ndax man lañu wàkkil mbóoti mbóoti muy mbóoti ti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbóoti Cheikh Ahmada Tijaani كون بو امي دارا لي موي تكتل موي انما الكامل من قد جمع بين مقامين فاصا من ساعة كيما دغ دغ دال موي كي بولا نياري مقامي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واو ما شاء الله الحمد لله نيغا سنتال يالا بنان يون واو محمد كبي كين لا رك سي جولين ني محمد كبي كين لا سي تيجان ني كين لا سي طالبي باي كين لا هي تامين سي زاكرين ني سي تود كات Andang nak nag ba legi nak mu ngi lifantu toll ci dal baasin ni mara waye ma ngi juddo ci sa kañmoor maa ngi juddo ci sa mor ci man na wax ne 1975 yakarna suma jumu dat bi lol la at mi na Cheikh Ibrahim génne àddina at moomu ci lañ gane àddina ñun wala ma ne ci fin 74 ñaari date yi daal benn la ci eh, <clears throat> date de naissance bi nag moo sori waaye ci diggante ñaari wayjur suñ baay mu ngi tudd Baye Moussa Kébé suñ yaay mu ngi tudd mam Jaara Mbow suñ papa ngi cosaanoo Kébé waaye suñ yaay ngi cosaanoo Mbowen gi Ibou Diouf ne xoon waaridaat yi di wàcc ci moom nga xam ne nangoo naa ci làmmiñu bàyyi Elimaan Ñas mu ne ma dañ koy wax toujours ngir sant yàlla mu ne ma yow sikkar danga koo donn ndax sa maam yi bokk nañ ci ñu jëkk sikkaral bàyyi mu ñoom xamar ñaarum baabu sëtu baabu nee na saadar soxna mi nekkoon secrétaire Ibou Diouf ba ibu juuf daan woy ne xale yu mbooy doomi seen dañ lañ dañoo riitandoor laay laay la ñuy dundee ñoo gëm seen i baraam waaye nag ki ñu jàngal mooy oustaz Jim Kébé ca Kébé Mbudaay moo ñu dalal alifun baawun taawun saawun bañ fa bàyyeekoo jaar nañ Kaffrine école Cheikh Abdoulaye Wilane à 92 fekkentoon naa fa ak sama mbokk sama xarit sama soppe saakir bu mag boobu saakirul xadara muy Ibrahima Ndaw dajee nañ fa mu rawee woon ñu benn classe ñu ngi ko fekk saalis ibtidaay ñu ñu ne saani ibtidaay gannaaw loolu ñu dem ci Ibrahima juuf Ibrahima juuf moomu nag taarixam moom la ñuy njëkkee pour waxtaan ci kan mooy Ibou juuf te am naa yaakaar ne buñ ne kan mooy ibu juuf damay laajte ndax dañuy tëb rek dal ci Ibrahima juuf wala dañuy tëb dem gëstu ji ñan ñooy ay maamam ak fan la fàqee ko ak itamit fan la dajeeg Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu yaakaar naa lu am solo la dafa am maam yoo xam ne ñoo ko meññ maam mi maamam bu ñuy wax xaali juuf Diouf ak Mamadou joge juuf ak Hamba Mbesaan Diouf ak Mamadou joge Seen ñeenti doomi baay yi ñoo baxee ko siin dëkk bu ñuy wax laaxar mbul dégg nga laxaar mbul lañ bayee ko dëkk boobu mu nga wetti mbul gu mag dëkk boobu mu nga dend dëkk bu ñuy wax njaate ak ndindoor ak njarno dëkk yooyu la dendat e, njuuf fi nag Ibrahima Juuf gi foofu lañ jógee bañ fa jógee ñëw Saalum ci dëkk bu ñuy wax kawoon mu ngi gannaaw Kawlax dëkk bu ñuy wax kawoon mu ngi gannaaw kawla bañ fa ñëwee eh, Mamadou Diogoye Diouf des fa Mamadou Diogoye Diouf ba mu fa desee ña des dem Silig bañ demee Silig Mamadou Diogoye seen des fa ndax ndax xaali xawa Diouf xaali xawa juuf moo des kawoon moom moo génn àddina këwoon dégg bañ fa défé bañ fa joggé ñu dem silik bañ démé silik mamadou joggé sen des fa mamadou joggé sen bam fa déssé nak ah ñessa dess des dess dem silik muy gënaaw undofan muy dëkk bo xamantene bay khalifa ñess fa la juddoo muy taw mam abdoulaye ñess bañ fa joggé dem yi ña sa des dem li yaasa muy Amadou Mbassane Diouf ak Mamadou Diogoy Diouf ñoom ñoo dem yi li yaasa fekk fa seen ñaari baay bu ñuy wax ma Diouf jabunding Tamba jabunding ñooñu lañ fa fekk dégg ñoo Tamba jabunding mi nag moo sañ ci kër Tamba ci 1890 ci taarix bi nga xam ne moom lañ jëkk jot ñu jëlee ko ci oustaz Mbay Soxna ca kër Tamba nga xam na dëkk boobu fa la Ibrahima Diouf ci gàttal daal Ndioufène na Ibrahima Diouf gi fëy lañ baxee ko bañ sañcee kër Tamba moom ma Diouf débu ndiñ mu jël ñaari doomam mu jël ñaari doomam yooyu muy Mamadou Jógoy Diouf ak Xamba Mbesaan ngir ñu dëkk fa bañ ñëwee dëkk fa ki jëkk moom dëkk ba si ñoom muy kër Tamba googu nga xam ne e, ma ju e, Tamba jabu ndig moo ko sanc ka jëkk moom dëkk ba ñu ngi koy wax Mamadou Jogoy Diouf gannaawam Xama Mbesaan Diouf moom na dëkk ba gannaawam Ama Diouf moom na dëkk ba gannaawam Leyti Diouf moom na dëkk ba gannaawam Haali Diouf moom na dëkk ba gannaawam Matar juuf moom na dëkk ba gannaawam Hibra juuf moom na dëkk ba gannaawam Abdou Sadio Abdou Sadio moom na dëkk ba gannaawam Xaalis Saaj moom na dëkk ba gannaawam maam Omar Diouf moom na dëkk ba Omar juuf mii la Ibu Diouf woy ne tafsir Omar Diouf kër baya jiita ruugo mun ko poosa liina Sidi dimaas ja ca Tamba abol faydu teew moo ko jullee jox ko boromam sidi barahama kon Omar juuf mi moom na dëkk ba gannaawam Babou Yacine Diouf moom na dëkk ba gannaawam Moussa Diouf moom na dëkk ba gannaawam Amadou Diouf moom na dëkk ba gannaawam nag Mandongo juuf moom na dëkk ba Amadou Diouf ama Amadou Diouf mi ki Ibrahima Diouf jox ko guru ci kër Tamba ñu koy wax Bintu Mbow déggoo ñoom ñaar ba ci Ibrahima Diouf ba ba nga xam ne déggoo te Ibrahima Diouf Amadou Diouf mii moo takkoon Bintu Mbaw Bintu Mbaw laaj naa ko daaw jëg ci gàmm kër Tamba ma ne ko li tax bala Ibrahima Diouf euh, joxe guru nga bañ ko mun a bañu ma ko dama ko ñemewutoon loolu noonu entre parenthèse lay doon ba loolu amee man na dëkk ba man dama lay wax ne euh, la. ci ñi ci ñëm ci noonu la Mamadou Diogoye Diouf nag moo jëkk moom kër Tamba ci ñi sant Diouf Mamadou Diogoye juuf moomu moo am doom muy góor mu tuddee ko baayam Ama juuf Ama juuf moomu ah moo jur Leyti Diouf Leyti moo jur Leyti Diouf Leyti Diouf moomu moo jur Séni Diouf seen seen moo jur ak renem juuf ak ak juuf ak njandi juuf dégg nga ak njandi juuf siini juuf moo jur samba juuf ak babu siini juuf njande juuf moo jur habdu njande ak xaali njande ak faatu njande ak yasin njande kumba njande dégg wax naa la ba wax naa la wax naa la ba seeni juuf seeni juuf moo jur sàmba juuf ñu ko wax sàmba seeni juuf ak baabu seeni juuf sàmba seeni juuf mii nag ñu may ko soxna su ñuy wax binta maram géy binta maram géy mi waa binta maram géy mi waa pakaw la binta maram géy waa pakaw la pakaw ci gàmbi la bokk moo tax amul kenn ku la mën a wax ci Sénégal may nijaay Ibrahima Diouf dégg nga moom si Gàmbi la góor guñ daan wax Leyti juuf moo daan jógee kër tàmba di nooraani pakaw jamono jooja nag am mu daan dem si xaritam boobu xaritam boobu di ñëw si moom xaritam boobu di ñëw si moom dégg nga na fa benn xarit mu daan dem si moom kooku it daan ñëw si moom layti nag ñetti jabar la xamoon la amee woon ka ca njëkk lañ ko doon wax ak Ndak juuf ak Maram Gueye maam Mbow moo jur Paate juuf Ndaak Diouf moo jur Aliyu Ndaak ak ak àll àll moo jur àll yu ndaak ak xaali nga maram géy moomu ah xamut doom dégg naka noonu si biir dem boobu layti juuf daan dem pakaw si la ko xaritam boobu séddee binta maram mu jox ko maram géy mu jox ko maram géy mu yar ko comme doom looloo waral dégg ñu daan ko xooxee binta mu maram géey waaye maram géey juru ko bint moomu nag lañ may Samba Diouf mu am mu dégg nga mu xam sa Ibu Diouf mu am sa Baabu juuf ñi ko daan wax Baabu Binta mu teg ca Xasan Diouf ñi ko daan wax Rafet Jaw mu teg ca Ibrahima Diouf mi nga xam ne radiyallahu anhu moo daan woy Mawlana Cheikh Ibrahim yal na yàlla yokk leeram te taf ci ñoom salaamaaleykum maa ngi xaar beneen question. bi fa demee kooka moo ko yar moo tax bi ko yëfi ñëwalee rek mu ne bi may boo caameen suma makkaan jëm si njawara xaal baa ngi may tourné may wut si di baram fële mu ne xaal baa ngi may tourné may jeex si di baram xam nga arab du laajte ku lay jur ku la yar lay laajte moo tax ñu bëri foog ne caameen la juddoo mais kër Tamba la juddoo baabu baabu seeni mi doon binta maram ci Samba juuf amut ak binta maram doom amut ak Binta Maram doom Ibou Diouf ñaari mag yu góor la am muy Babou Seyni Diouf Babou Samb Diouf nga ko tuddee rakkam Babou juuf ñu ko daan wax Babou Binta Babou mu Binta mu teg ci Hassan Diouf ñu ko daan wax Rafet Jaw Ibrahima juuf doogu ñëw na ñetti doomi góor ñetti ñii la Maram am ci Samb Diouf waaye Maram Gueye amut Bint amut ak Babou doom Ibrahima juuf nag Ibrahima Diouf 1902 la juddu ba mu juddoo am na yu bari yu ca xew waaye dinañ ci tuddu leen na kat bi mu juddoo yaayam moom Ibrahima Diouf dafa toog ñi ne weer ñi ñaari weer mu toog rekk xëy rek xaj ay bëtam di xool ci kaw xëfut yaayam tiit foog nga lim jur du nit mag ñi buñ juraanu nit ul nit dañ koy yóbbu ci ceddo yi su ko defee ñu yëngal seen bagage yi loola tàggoog ñoom yaayam dem ak moom boori kinte kunda ci benn sëriñu soose sëriñ ba yëngat bagage ne ko ki nga jur nit la dafa am ku muy xool ki muy xool nag ker bu mbiram ñëwee fi jant bi fenkee ba fu mooy soy bu ñëpp ko li bokk na ci ay karamaam bam demee ba mën a wax ba xàmmeeku dafa xëy rek gëmmu ñaari bëtam bi bañ xool yaayam bint na ko Ibrahima sa bët yi ngay gëmmu nii ñaari semaine xooloo la wanentu jar na mu ne ko yaay wanentuwuma li ma gis laa ñemewut kere ba mu xoolee ñaari bëtam yëpp naa ci deret daan na bàyyeekoo kër tàmba daan na bàyyeekoo kër Tamba ndax kat. Ibrahima Diouf bi bi Babou Seyni génnee àddina yaayam dafa delsee ak kër Tamba moom ak njaboot ji daan na bàyyi ko kër tàmba dem kër biram ca gannaaw kër ca kër gannaaw kër xaali mbana Diouf xam na guy gu fa nekk ko ko daan guy njaga xam na benn ponkolam jaan ju a nekkoon Ibou Diouf bu ñëwaan daan toog ci ron guy gi di wax jaan ji léegoo léegi mu ne ko yow dema ko ba léegi yow demagoo ba léegi loolu la nit ñi dégg rek waxaay la ko jaan jaay tontu nit ñi duñ ko xam kon moom Ibrahima Diouf radiyallahu anhu e, loolu bokk na ci ay karamaam yoo xamante ne daan na ko wane Ibou juuf nag daan na wër ci dëkk yu bari ndax bi mu bàyyee koo bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko waxiyu gi dikkalee man nañuy wax ne waxiyu la ndax kat fa awha ila abdi ma awha ma kazabat fu adumara loolu ba tey xarnu bu nekk dafay taxaw ci bu bu bu borom jamono feeñee moo tamu ne ba ma bawoo caameen sama màkkaan jëm si njawara xaal baa ngi may windeel may jeex si di baraam mu ñëw njawara angale fekk fa maam siiqu fay maam Cheikhou fay lu ko andi woon njawara teretu gerte la woon dafa doon teretu gerte daan pees daan jënd gerte foofu da doon fa seko waaye ku amoon këstu la ku amoon amoon na këstu yàlla mayoon na ko lool te maam fay Faye moomu taalibe maam Alaaji Abdoulaye la woon ndax umpale wu ne déggu ne bis mos naay ñëw Tayba ba ñëwee ci daara ji da laaj yi kenn ku ne foo fu saxala wa bi mooy laajat bàyyi ñi ne ko kii mokkal na bu yàgg mu téye bàyyi ci loxo dem ba ci maam Alaaji Abdoulaye mu mag ma yal na yàlla yokk leeram taaf ni ci barkeem mu ne ko bàyyi yal na yéex waaye su ma demee ba gisatuma la xam naa sëriñ kii mooy sama sëriñ Seexu Fay moomu nag moo wax Ibou Diouf na ko Ibrahima Diouf gént naa pak puxe mbooti mboot boo xëy bu jëm ci Sodaan Ibou Diouf na ko walaa bag boobu laay laajte ban gaar laay tere ndax ma présenté ji ko mu ne ko ker bu suuf nit ñi bëbandoor mene bari teew fa gaar ba bu suflee mooy bu xootee nit ñi ba suma afidu ah ah suma afidu min haysu afaada naas kenn bu suflee nit ñi ba ba ndoor mene bari ya fa gaar ba bu suflee mooy bu xootee nit ñi dinañ ba bu xëy si ko mene bari ñooy xaasi gaar ba mooy koosi bato ba nag mooy faydu bi nag bàyyam fa koosi la ko gaar rek moo tax Ibrahima jiw way tarbiyu leen xam yàlla yilimaanu faydu ba ñëw na imaamu faydu ba ñëw na sóob na lànkar ba ca kóosi waaw radiyallahu anhu gar ba mooy kóosi maa Ibou Seexu fay na ko Ibou Diouf ker bu suuf leen nit ñi ba bandoor mene bare teew fa gar ba waaye Ibou nekk naag Seexu fay foofu ba Seexu fay di dem Banjul ànd naag moom moo mu ne ko sama ngaan Seexu fay Banjul mu ngi may loo abol fay du fay na soodaan si di mu jógee ko foofu gis ne lim doon ut daal ki mooy ut daal nekkul ci mu nekkul foofu mu bàyyeekoo fa nag jaar Medina maam Maska jaar na fa ci maam jaar na foofu Medina maam Maska Ibrahima Diouf jaar na fa maam Maska yaakaar na moo jur suñ maam Alioune Ka Alioune Ka moo jur suñ bàyyi. cer na Ko di imaamu ratib bu Banjul Ibou Diouf jaar na fa kañ tuufu yëf ndax gëttëg parfum gi ko xeñ muy kaafin kaaf bi ki ko laal kan la ak fan la gëtt gi bàyyeekoo moom la doon wër mu ñëw sookoon nag la anhu ba mu ñëwee sookoon ah mu daal ñin mu ñëw sookoon ci kër maam Burama Soxna ba mu fa ñëwee moom Ibrahima juuf xam na soogoon juróomi at di xaar baay di xaar baay ñes su nawet jotee mu ànd ak keebaaloo ku ñu wax keebaaloo demboowe nawet ba 1932 1932 ci la bay ñëw Sokone lan moo indiwoon Baye Sokone góor gu ñu daan wax maam Ousmane Koumba Diouf ci Ndioufène ak Bambugaar gi moo génnoon àddina. génnee àddina Baye di ko jaale see ànd ak suñu maam sayda soxna maam ay maam Aysatu Sarr di wéy juru suñu baay alxalifatul awwal muy alaaj Abdoulaye Niass mu bàyyi yal na yàlla yokk leeram taaf ñu ci barkeem dégg nga ak suñu maam maam alaaji Mamar Seyna bu Niass bokkoon na ca yoon wa bi bàyyi ñëwee sookoon e eh, mu dal kër mu jaar kër meten Diouf parce que moom la jaale si woon baayam waaye ngan nga dafa diisoon ba ci ñetti place lañ ko la ko bàyyi doon baagante kër maam Ousmane Kumba Diouf kër na kii kër meten Diouf kër Birane Thiam kër Ousmane Kebbe zaawiye bi nag kër Birane Thiam la newoon ci Sokone lii may wax bay Mbaara Jaase moo ma ko nettali Mbaara Jaase nee na ko maam comme soxna moo ko nettali te maam comme soxna nee na bokkoon na ca ñi doon mooñ cere ya 1932 boobu ngan googu Abdou Biteye Batamar bi ngay dégg bu jëf di woy naan Abdou Biteye Batamar Abdou Diassé Bambugaar kere ngan googu indi na matt mu bëri ak dugub ju bëri Babou Diassé bàyyee ko Bambugaar indi nag ca ga kereg la maam Tafsir Aliou Ngom sookoon jàpp ci Baye Niass radiyallaahu anhu nga xam ne doomam Habibou Ngom nee na ma ñeenti at caati saayir moom la ko bàyyi magee ndax 1900. mille neuf mille mille mille neuf cent mille ci la juddu bàyyi nga juddu mille neuf cent kooku keroog la jàpp ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu e bàyyi waxtaan ci zaawiya bi dañ koy taxañ rek bàyyi ne waxtaan war ba ne ana ku may wëy maam Sadar mi nga xam ne moo secrétaire Ibrahima Diouf mu ne ma jotaay ba man maa ngi fa maa ngi toll suma ñaar fukki at ak juróom bàyyi na ko may wéy mu ne benn waay jóg daldi di ne xam na daraja xam na maqaama ah yàgg-yàgg danañ ko raamali waaw xawaaw xam na daraja xam na xam-xam yàgg-yàgg danañ ko raamali bàyyi na ana ku may dolli ñu ne ko bàyyi am na góor gu ku ñuy wax Ibou Diouf bàyyi na xool leen ma ko Ibrahima Diouf départ fa mu départ di ñëw baaraaj moo séen ba ko koo séen rek wax nañ ne ci leen borom bopp bu rëy ba bu ñëw fokk dana am lu wax bu ñëwee fokk dana am lu wax bu Diouf bu mooy seen bàyyi ci leen tarbiyu leen xam yàlla xelimaanu faydu ba ñëw la woy wi la jëkk a woy ci kanam Baye Niass amaa na yi daanoo Sidi Baraam mooy jàpp leen seen kurus tey wirde bu leen ko ŋaa bu leen di ŋaayoo luñ leen waxee ne la ngi neex ngir Sidi Baraam woy yi yi daanu Sidi Ibrahima li des njëkk a wëy ci kanam baay radiyallahu anhu salaamaaleykum wa rahmatullah eh, ba tey ñu ngi laajte Ibou juuf dañuy wax ne ci dundam bi doon na yar ay pitaax eh, moom ak pitax yooyu nag daana xam li pitax yi doon wax di ci inspiré wu loolu it bu fekkee xam nga ci dara nga leeralal ñu eh, Ibou juuf ci ay wayam degg nañ mu tudd niñ ki nànk teewul wuñ bayti bi ndax Ibou Diouf gis na Ninki Nank ak àllaqaam ak Ninki Nank jaan jooju nga xam ne dégg rek lañ ci am euh, bëggoon ñoo xam digganteem ak Ibou Diouf euh, ci ay wax ibu Diouf ba tey wax bi muy wax naan ci wayam yi liir boo xam ne ñeenti mbootu la am wax boobu boo ci amee fahmu nga gën ñi cee yokk incha allah. bañ fa jógee dem nañ tey ba mbayeen daara si Modou Xaali Mbay jàngee yenn ci téere fiq yi e, bañ fa jógee nag ci lañoo mi dina Baay waaye ñu ngi tarbiya ci loxol moom alaaji Asan bi ci ndimb ak 92 nga xam ne moo jëkk nekk muqaddamu Cheikh Mahamadul Haadi ca ndimb foofu lañ tarbiyaxee waaye nag suñ yoonu sufiyanke nag moom ñu ngi ko sóoboo ci liggéey kata Baay Ñas bu mag boobu dégg nga muy Baay Usmaan Abdou Barham jaawo moo ñu teetee moo ñu waaye tamit nañu sikkar mooy seen mbir moo ñu wan yoonu sikkar ba tey ci tey macha allah ñu ngi ko sant yàlla bu baax moom ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam te may ko wér moo ñu jox ijaasa yi tamit gannaaw ba mu ñu joxee ijaasa yi tamit Moustapha mu daam moom tamit mën naa wax ne tey ci li sant ñas ci sëti Mawlana Cheikh Ibrahim yi moom laa ci jëkk a xamanteet ndax 2003 laa nekkoon nag moom yëmbal fii ci daayiraam mu bàyyi ma fi dem Angleterre bim ñu see nañ fi dem fun dem Murtani bim ñu tamit itamit kóllëre googu daf ko feddalaat sama diggante ak moom ba moom itamit daggaan na beneen ijaasa jox ma ko ci ijaasa boo xamante ne ci ijaasa baaba Lamine la ci ak ci ijaasa baayam loolu daal kii daal mooy Mouhamed Kébé dégg nga nekk nag bokk ci liggéeykat yi Mawlana Cheikh Ibrahim yi. di ñaanal yàlla eh, di sàkku ngeen ñaanal ko yàlla salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw Ibrahima Diouf gannaaw bi mu bay bàyyi maanaam bari utoon lim daan teew nag ci kanamam maam Saadara nettali woy bii mu woy eh, maam Asou Diankh wax dafa mos a ñëw dafa ñu ñëw nay si baay bàyyi na ko ah Ibrahima Diouf depuis suma yaay génne àdduna ba léegi yow dégguma nga marsiyaal ko ci dara ci la tëb na ko babul fu yow daati ixbir lii sadaxta barham yaa di baabu kanzil mu ne ko babul fu yow daati yow ki nga xam ne yaay buntëb bëbb yi ixbir lii rek ndax sadaxta barham yaa di baabu kanzil azam mutam na jawal len leen ma maami umu barham yaram bangga ali aliyina suñu mam jihu huuja mam asta anha yelna na tafni taf ci mom waw len di ci timis ba mam di tagu barham an ko may ñu ndigal mbir mi manna dem ba fuma waxe nan ha ah, mam maam ay mam mam mam roqi njaay mam umu njaay ah xam nañ keur fa na sidi barham dem ba yen ñi mam yen ñi yen yéen ñi seex doon garde loo yaayam ba ngeen toppatoo ko da ngeen teewi xel yi na mun a bay aji ba mu ne bay bay bay bay aji sëy na boobu sëriñ mbay ak maas ñoo yor maam ba jox ko boromam di baraham loolu yëpp ci way wala radiyallahu anhu waaye Ibrahima juuf wax naa la ne ñetti kës fu la ko yàlla jox xam na li teew xam na li passé xam na li dikk taak seegut moom pont noir o rombut ko rombut pont noir o mos romb pont noir o suñ ko waxee mooy mos romb kaw te lu éeme la eh? ma ne Ibou ci géej damay wax rek la ma waxoon man du ma weddi kenn ma weddi kenn waaye li ma xam rek moom laay wax la ma xamut dama cay màndu e Ibrahima Diouf nag nekk na koo xam ne mom doomam jim amon gannaawam la juddu ndax kat dafa ànd xaritam ñuy dox biñ ko maye bint maram ànd xaritam ñuy dox di dox di dox ba si yàgg mu dégg benn bala fatal bu dóor moo xarit bi na taxawal bal benn xibaar mu ne ko mu ne mari nee na sama soxna ëmb na doom ja góor laay doon waaye du ma fekkee ngént la kooku ba ñu tuddee ko Ibrahima Diouf maam Sadar ne na ma baat moom waxoon na ne moom Ibou Diouf ne waxoon na ne su juddoom ju judoo nañ ko tuddee bàyyi ba baay jote ci xibaar ba ne lum dañu ne góor mu na doom bu juddoo di góor ga gannaaw bàyyam bàyyam nañ ko tuddee kale boobu mam Sadar nee na ma maa dalal jàng mu jug ñu indi ko mi dina bàyyi mu nekk ci daaray ma Amadou Thiam ji sëñ Daaru mii la yokku taf ñu ci barkeem toog naa man ak moom ak Moussa Soxna ak Cheikh Tidiane Thiam mu Thiamène Jogo Moussa Soxna muqaddamu Cheikh Moussa Soxna muqaddamu Cheikh Mamadou Aqib la ca Sigéen Zoor ca gam Ousmane Ndiaye ga ca kar ca sanc ba yaakaar sanc ba waaw bu dul sanc ba su réew te sanc si Sigéen Zoor sëñ Daara Ousmane Ndiaye man ak doomi Ibou Diouf Diol ñoo bokkoon nekk ci dara ma Amadou Thiam ji di jàng xanaa loolu leer na ah loolu. kasamsu wa duhaaha dara gënu koo lër dara gënu koo wér man damaa wax ne man waxuma sama waxi bopp man mag ñi laa toogoot ndax man fekkeewu ma mbiram Ibou Diouf fekkeewu ma ko man fekkeewu ma ko waaye nag yàlla dimbale nañu am na mag ñoo xamante ne dundoon nañ ak ñoom ndax man 96 ba léegi laa jóg da dox ci réseau bi 96 laa départ da dox ci réseau bi départ Nioro jëm kër Assane Dia si secrétaire am ki ko daan bindal mu jigi mamam neena ñang jël ci ko yobbu ko mboyoon mboyoon sanci de nga mboyoon sanci gogu sa mboyoon sanci gogu ibrahim diouf yaron na fa ay pitax tubab yaron na fa ay pitax ñaari pitax la fa yaron pitax mu gor mu mag me nak bu gudd jotee moko jëli de ay xibar mo tax mu ne bu minuy nu hamama xam maama lu bak barham dama yow khatir waw nga ñana wax bo ñoy wax man daf may a ah, dolli xaal mac su bu ko dégg daa xim si di barxam dégg nga picc moomu pitax moomu moo ko daan jëri ay xibaar am na ñuy wéy naan bu mu dama dama damaayu fanaan a xaatir fa nga fanaanee fa fa fa nga fa nga ah, yeewu amatu fa da ngi dégg damaa yeewu fànna xaatir fannaa o jëy firi jeex siqaatir wuyu moo laaj wasnu wuyu moo laaj mu dagg alif ak hamza génn damaa yeew fanna xaatir waaye fannaa uji firi xaatir la mooy dafa yeew rek jeex ci xaatir nag te rek maam Sadar nee na ma daan tëdd ak ba digg guddi mu mel ni nii bi ay ci nekk muy ngurum tulu rek di di di di riimal ci suuf rek ba ci yàgg mu dóor ko ci ne mu dóor ko ne ko Sadar soo na jël xalima ga sama ba bàngee toj bi nga ànd ak Ibou ñaata àll nga toll mu ne ma sama ñaar fukki at ak juróom ci laa àndeek moom radiyallahu anhu ndax mu ne dafa ñëw ba mu bàyyi ko sookoon dafa ñëw mbowen di wëy bu daan wëy mun ne ibu jug ko amoon xëbbool la su daan wëy xale yu góor yi xale yu jigéen yi ñoo koy wër benn bés mu ne leen ndax ndax am na ko man a bind ci yéen ñu ne waa am na ko man mu ne mu loxo ne ko man de mën naa bind mun ne ko am na li may dikkal ndax danga ko man a bind maam Sadr moom moo tontu Ibou Diouf mu ne ko lu suuf taw lum taw taw suuf mën na koo dëkk dékku lii 96 la ma ko wax ca kër Assane Diass ma ne ko nag maam yow bàyyi la boole ca programme bi yow bàyyi moo la tontul waaye du yow keroog tooñ naa ko sax loolu yal yàlla taf seen barke yokk seen leer ba loolu amee mu commencé di ko bindal moto Ibrahima Diouf ne ko Sader soxna Murit Sadix bi secrétaire bi merci moo may bindal wax ji may wax saadar soxna murit saadix bi saddaqul amin mandi nga leer jógal sabal saadar soxna murit saadix bi yaa ma xàllal yoon bu taxutoon a capitaine gal soox lii moom wéy na ko amaa nag wéy yim wéy ne ñaanal leen ma keroog su ma del nekk di a bàyyi balaa loolu sax nañ dem ci doom ji doom jooju maamam mujj gi dafa toxoo mbooy dem kër Massiré kër Massiré Jawara côté Ndramé Escale ba ibu juuf mu ndaw moomu astafurla ndaw sax amu ci ba Ibrahima Diouf moom di doomi ibu Diouf jooju ci la génne àddina fa lañ ko rob radiyallahu anhuma Ibrahima Diouf nag woy yëpp junj way wu nekk woy yi nekk rek mu ngi junj xaalu baay mu ngi junj ay maqaama mu ngi ñuy wax kan mooy Cheikh Ibrahim ci maratib yu ne rek joxoñ nañu fa baay danga nga li nga wax ne mu wéy na ñaanal leen ma suma dese nekk di jaama baay war leen ma loolu gaañ parce que tam mooy yonent Yàlla sallallahu alayhi maqaama yim am ci yàlla yëpp bim koy am jaam la ko fa tuddee bam koy jox alquran jaam la ko tuddee bam koy jox maqaama biir jaam la ko tuddee ah waaye bam ko rañaane tamit jaam la ko tuddee xayan na looloo tax Ibrahima Diouf moom tamit di demande yooyu ci Mawlana Cheikh Ibrahim ah looloo waral mu ne ñaanal ma keroog su ma dellusiwaatee nekk di jaam a bàyyi warlu leen ma loolu gaañ. kon bokki taalibe yi lii lañ amoon danañ ci danañ ci waxtaan ak yéen wax dëgg yàlla quarante minutes lañ waxoon yaakaar naa ne romb na quarante minutes et li ci des lépp lu rafet ci wax ji dañoo bëgg mu rafet luñ ci juum ñu xam ne doomu aadama lañ matuñ ñu jëggal ñu ko leneen li ci des incha allah bu beneen émission taxawaatee ñu continuer at ndax war nañee dem ba ci mujj ak dund Ibrahima Diouf war nañuy dem ba ca dëjëm war nañu dem ñan ñoo bàyyi ko kër tamba ñan ñoo bàyyi ko kër ko ñew ci dëj ba loolu yow war nañ ko war nañ ko ki ak dëkk bi mu génnee adina kan moo fa nekkoon gem dégg nga ak itamin lan moo sabab sababu sababu deexam lan la loolu yëpp insha allah beneen émission dinañ ko waxtaanee salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa jabrul kasri ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ba beneen yoon rawatina Cheikh Babacar mi nga xam ne man ak moom ñoo sekk waxtaan wi wax yàlla seere ne damaa julli tàkkusaan rek ma ne xaaral ma dugg ci émission bi rek su ma pare rek laasin bi mu mën nañ koy fay waaye waxtaan kenn mënu ko fay ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm di sàkku ngeen ñaanal ñu yàlla lépp luñ ci yàq ñu ngi ko jéggalu xam ne eh, du dara bëgg nekk taalibe rek la bëgg a nekk rek la ak koo dégg ak ko mënta ko dégg ak foo ko mënta ko déggee luñ ci yàqu rek ñu ngi ko jéggalu xam ne bëgg nekk taalibe rek la ak itamit tuumaal nañ ñu ci tuumaal nañ ñu ci Ibou Diouf yaakaar ñun ñun ñu ko xam lañ te ñoo gën a néew ci ñu ko xam ñoo gën a néew ci ñu ko xam waaw bayti mi nag li ma ci teewlu yëpp takku ko waaye daal fa alhamdulilah ñi ngi sant yàlla ci bayti mi ñu ngi ci sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla tamit ci daaj yi ñu ngi sant yàlla ci daaj yi fépp foo xamante ne def nañ fa daayira fépp foo xam def nañ fa daayira suñ daajee ñu man koo baaru danañ ko daaju ñu baaru ko parce que baaru bi mu ci la gën a xam xaal waaye nag fépp foo xam ne daayira nañ fa bu ñu wóor na bu ñu daajee duñ mën a daaj ñu wéy ko individuel bi individuel bi ñuy wéy nag wutuñ ci dara duur pour nit ñu jox ñu xaalis du loolu duur pour nit ñu jox ñu xaalis pour taxaw di wéy pour bëgg loo am dugal sa poos du loolu ku ko ci njorto yi tamit ñun loolu taxul ñoo jog loolu taxul ñu jóg lëggéeyal Mawlana Seydou moo ñu tax a jóg kon nañ ñu bàyyi nañ ñu bàyyi ñu xam ne bëgg bàyyi rek moom lañ bëgg a def te xamuñ nu ñuy def ba bëgg buñ ñu gàllankoor ci ay wax buñ ñu gàllankoor ci dañu ci dañuy sànni ay baat déedéet nañ ñu ñaax nañ ñu oo dañuy ñaax góor góorgóorlu loo dégg nga ah dégg nga dañuy ñemeloo moo gën ñu ñuy rikk ci luñ nekk moo gën ndaw bu jógee pour góorgóorlu dee ko ñaax waaye moo gën nga di ko rikk ci lim nekk man de loolu ànduma ci waaw man ànduma ci waaw moo gën nga di ko rikk waaw nit ñi oo dañuy ñaax waaw mag ñi nañ ñi oo dañu ñaax parce que ñun ay ndaw lañ ba léegi laa la wax ñu ngi gëstu duhuñ dara manuñ dara yaa ngi dégg xamuñ benn maqaama xamuñ benn xaal xamuñ benn martaba yaa ngi dégg taalibe bàyyi lañ bëgg a doon te xamuñ na la ñuy demee doon taalibe ndax kat Baye Mbaye waxoon na ñaan leen ma nekk taalibe lu mën a xew Baye Mbaye mu ne yàlla laa bëgg su ma bëggee lan la duur yàlla dama na doomu aadama rek waaye yàlla rek laa bëgg ndem maam Cheikh Serigne Mbaye Niass moomu bàyyi waxoon ne mooy ra su sa mooy sama bopp taaliba yi mooy wax loolu ma jaa bon ana ana anaamat bi nga xamante ne ah sa taaliba sax leeru ñu sa tijaanitu sax leeru kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla di sax ngeen ñaanal ñu yàlla wa aqru da'wana an alhamdulillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, incha allah beneen émission bi ci mbott mi la ñuy dalee parce que maanaam laaj yi dafa bari. dañ ko teel defal dafa bari moo tax pour ma takk yëpp dafay jafe waaye léegi laa sama xel ñëw ne laaj mbott mi bokkoon na ci waaye incha allah beneen émission bu ñëwee incha allah ci mbott mi la ñuy dalee nag ñu continuer nag incha allah il faut ñu def ko ñaari émission waaw baax na jërëjëf waaw danañ wàccee benn way rek incha allah su defee ñu tëjee ko waaw samsul maarifi ay kaamil yadda jëmmi mbóot sellal leen ki doon yonen moo di baarama biddiwu jaw saabi yaa fiq maxrib leer kansul ulum wax ma ko doon si di baarama kansul ulum bi ñas yaay manga siinu olu laayi njaarama olu lansar gaañi baarama dàq leen rëy gi ci seen xol baram ari war daandam mahjub si di mumi duccam santal barama milayro seler yaram banga bo lewdor sidi barama gorgorlulen jema kam yalla loloy sewel jam lolla yalla santa jambe sidi barahama kusi jogot jema kam yalla nargay wala kana secretaire peyba ñewnam mode barama bay duggamal gën madda yurndolu reddotut fen cabbi seru yangma jebal sidi barama السلام عليك يا دون أسرار تيجان درة البيضاء بدوماس سيدي بارما درة البيضاء بنجاراما ñasiyaadi rahmaan gën gi mindee wax ko doon sidi baarama ku fop xorom jikoo da ca sentu ngoo béef dama yarama am daña taaxay honde gam leen gañi baarama semmiñu armiñom wuy gor def na may reelu man ci butel gam noni baarama ba yëg la mooy rat ku ko yaakaar doo mandim soow ñay wajur na sooma baawan ribaaram jileen fi kon lépp luy meññi góob di muñ yàqkat du ci seen mbay gani baaram jileen fi kon lépp luy meññi da ngeen góob di muñ yàqkat du dal ci seen mbay si di baaram alhamdulillah maa ibu juuf jileen fi kon lépp luy meññi da ngeen góob di ñu lu xew mu ne yàqkat du dal ci seen mbay lépp lu waay lëggéey dinañ la ko fay te aji xañaan mënu ci dara salaamaaleykum wa rahmatullah lépp lu waay lëggéey dinañ la ko fay aji xañaan aji soxor aji yàq mënu ci dara salaamaaleykum